lépp nag ki ñu ci gunge mooy Serigne Abdoul Aziz Diaw du nit yàlla ku màgg ku mag kilee di boroom ruus na maa xam góor muy am gàcce ci kaw lal rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci mystique rus na maa xam nit ñu di ko xeex ci baatin waaye ruus na maa xam nit muy dellu ginnaaw rus na maa xamanteeg nit ren ba déwén gaa ñi di ko yërëm kooku mooy Serigne Abdoul Aziz Diaw ay numéro mi ngi doon di affiché ci baro écran bi ngeen mën a jokkoo ak moom lépp luy fajum plante lépp luy ñaan yàlla jokkoo leen ak Serigne Abdoul Aziz Diaw. gannaaw ba 9h jotee ba teg 32 minutes fële ca Jolof ak li ko wër asalaamaaleykum. jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel geeg leeru jamono émission bu mag bi la dellu seet na muy jommet ngeen di ko am 9h30 jàpp 10h ànd ceeg ma jigéen Diop so sa Ndiogu Mbeng ak soay bu gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ne ci raison yi di correspondant yi nga xam ni euh, ñoo nekk ci raison yi nekkal fa wal fajiri Mamadou Makhtar Sarr mooy euh, séddale nuyoo boobu la ci ñoom euh, bu ñu demee nag ci groupe yi nga xam ne ñoom it ñu commencé ñu commencé jàngeen jëfati sama gars yi Alaaji Kadim Cissé Ilimane Diop Cheikh Ndaw président commando mi ngi ci biir léegi moom tubay jaa ngay buubu commando bàyyi na cëkkal yaag def yëf jaajëfal ku baax a baax moom Baye Assane Messi rek Mouhamed Silak Abdoulahat Ndoy ak Ahmadou Bamba Dieng Bamba fépp ak Serigne Ibrahima Diop ñoom ñooy séddale ñi nga xam ne ñoo ne fële ca groupe GCB yi jangeen jëf sama gars yi moo nekk fële ca production Sanjoogu mooy séddale Alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu Serigne Siidi moom Serigne Abdoulahat Mbacke ca Touba di xaritu Serigne daara yi maa ngi lay nuyooti soñ bi ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm. jaajëf di dem ba Touba di nuyu xalif général des Mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu sunu Serigne sunu xarit Serigne Sidi sëriñ Abdou Lahad Mbacke. di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar bu wér. Mhm. di nuyu Serigne Khadim Fall nekk ca kër ga ñu ngi koy ñaanal jàmm. di nuyu bu baax a baax. sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axlaa di nuyu kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp. lew nañu seen Medina Baye Tiwaawan Njaasaan Laayeen Ceneba Andu Laay di nuyu waa Jaamel di leen jaamal di jaamal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni eh, ñu ngi ñuy teewlu. Mm-hmm. di nuyu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis. Serigne Medoune Seye nuyu nañ ko di ko ziar di nuyu sunu tonton monsieur Lo. Mhm. monsieur Lo ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm. Mhm. di nuyu Madjigéen Diop. xaj mhm. eh, général kul lekk kat tool. di ko ñaanal jàmm di leen ziar jaajëf. léegi nga bitim réew. <laughs> maa ngi lay fay alaaji di nuyu son yi bu nuyu mboolem euh, auditeurs yi tewlu 99 point 0. démb diwaanu Thiès kay benn dëkk ñaari gaa nuyu leen ziar leen nuyu suñu mbokk borom tool yi mhm. ak waa Sine ak Saloum waa Bawol mhm. bàyyi wu kenn nuyu suñu mbokk sàmmkat yeeg maçon yi borom sareet yi ñi nekk si boutique yi mhm. vraiment bàyyi kenn di nuyu tamit waa diaspora bi son bu comme ni nga ko waxee tout à l'heure samay waay léegi mais maa ngi ah, tasee mm, waaw <laughs> maa ngi tasee ak euh, benn waay bu ñuy wax Pape Lay Fall nee na à chaque jour daf ñuy teewlu mu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax moom Pape Laye maa ngi tase ak moom ci rond point JVC bi juste. lu muy jaay fan sër ah? lu muy jaay. lu jaayul de si moto la nekkoon. Mm. moto si moto yore ay. Euh, ay ay. kaas yi ñuy defaree café. Eh, ah kon xam nga li muy jaay ah waaye ma jigéen nag. ah est-ce que du doon livré. borom kaas ya. Ah. aywaay borom kaas ya waay. <laughs> yërëm naa yi waaye dugg nañ ci. cek cek dugg nañ ci yi. <laughs> yërëm naa cag-cag yàlla waaw akbar yàlla <laughs> sama cag-cag yama yor naa leen wax ñu bàyyi ba ca kanam ñu doog a xëy <laughs> ba ma réglé situation di nuyuwaale képp ku yor cag-cag ah si biir réew bi yëpp nag bàyyiwuma kenn borom cag-cag yëpp man borom soo yu nuyoo duñ leen <laughs> xew borom soo yu nuyoo duñ leen waaye sëñ Moussa naawel gaawal ñaanal sama rakk ji waaye ndax mu bàyyi borom soo weeg cag ba ngoog nuyu ko bu baax moom Serigne Moustapha mbay euh, yóbbanti ko nuyoo ca Serigne Moussa Nawel mm-hmm. euh, ñaanal ko mu yàgg fi lool euh, mm-hmm. ak ni ko alaaji ñaanalee sëñ Muntaxa mm-hmm. nga xam ni sagu lislaam la ñu koy ñaanal bu baax a baax jërëjëf Mbacke la tey ma jigéen loo indaale man de tey li ñuy wax ak tardé li sëñ Tuubaa di wax sax moom tardé moom mooy looloo man mi tey dama biddanti ah loolu ma jigéen yow looy def ci internet bi ba biddanti billaay dama dama yeewu kay ma jigéen démb ba 4 heures du gis naa la ci ligne bi. ay ah, ah. gis naa la ci ligne bi kon ma jigéen ma ne alaaji loo indaale. Hmm? alaaji loo indaale. lu ma en yi daal gis naa gars di si wax. même si. non baalu ala te ñoo xool lu mu indaale. waaw man alaaji loo ah. li ma li li ma bëgg rek ñu wax. waaw mooy. Euh, mooy ci. Uh-huh. cadre waa ji quoi nu mu tuddati. jambal ma ma jambal waaw mi ngi jàmb rek de ma euh, li mu wax. Uh-huh. ma jambal de taxé na ñi liir kii bi nee na dégguñu tubaab. ma nag kon eh dafa mel ni moom mooy ki gën a dégg tubaab. moo fi si réew mi. Eh ginnaaw bi mu waxee ba pare. Hmm. ay intellectuel ni moom jubbanti ko. Hmm. ne ko li nga wax waru ko wax nee na dañoo interpréter ay waxam te ñuy wax loolu dégguñu tubaab. Eh, te moom mu leer ko li nga xamante ni bi moom la wax wax toj-toj te c'est pas la première fois Madiambal wax toj-toj. Mhm. même bu fekkente ni bii sax ci tarixa yeeg yi da ngay gis muy wax ay toj-toj ah. waaw Madiambal euh, loolu kii am la quoi. waaw style am la ko quoi style toj-tojam yii mu ne. moo tax nag alaaji mu jaaxal ma Madiambal li muy jàmb ci ay toj-toj alaaji te dara fekk ko ci. waaw moom mooy c'est kii bi fi mu ne rek. jamonoy sëñ Baara ba ci jamono sëñ Muntaxa gi lu nekk bind na ko ci Touba. waaw ba léegi nii ma jàmbal a ngi jàmb rek. waaw ah, non xam nga ma jàmbal en tout cas mi ngi def loo xamante ni bi en tout cas daal euh, naa la xamal leen ci àddina bi ci ci réew mi. waaw réew moom na sénégalais yi moom xam nga euh, sénégalais yi moom nañ nañu identifié ci réew mi nag xam ni ay sénégalais lañ. que ni ay femmes yu nekk Casamance sax yëkkati nañ ay kàddu. pour euh, jubbanti Madiambal. pour rek wan ne leen fii ci réew mi. mbirum waasoog yooyu munu fi am. déedéet waaw donc loolu di lu am solo. gaa ñi yeewul waaw bu yeboo ñu xam ni. sénégalais yi euh, gën nañu yeewul ñoom ni ñu yaakaar quoi. Mhm. seen affaire yi ñuy def pour seen propre intérêt nga xamante ni bi seen njëriñu bopp dong. mooy li nga xamante ni bii moom lañ ci xool. xam nga mbir mi moom prince da gis ñoo xam ne bii li ñuy def yëpp ak li ñuy wax du njariñu réew mi. seen njariñu bopp kese parce que Madiambal war na xam lu taal dëkk yu bari. dëgg la donc am na loo xamante bu demee ba di ko wax. moo lay wan ne la gis-gis bu gàtt la amee ko mais alaaj dañuy interpréter ay waxam. <laughs> non non non. <laughs> Alaaji il faut ngeen di dégg nit ki fi muy waxee nag Alaaji. ah dafa dégg tubaab de moom nee na gars yi dégguñu tubaab ah. waaw léegi gars yi sànni na xeer gars yi nee na gars yi dégguñu tubaab. léegi ñu bàyyi da kii maa ngi jégalu léegi dañoo interpellé la ñuy wax te te moom ba tey kenn su ko wax dara dañ koy bàyyi à fois muy continuer di wax rek. waaw xam nga sunu réew yi moom. Madiambal mi ci ku ñu waroon a déglu la de. Mhm. waaw xam nga réew yi rek dafa doy waar. waaw dëgg la de su réew yi moom boo amee. fu ñu la séentoo fu nga féete fenn. Mhm. dafa mel ni yat wi du la dal. waaw mhm. loolu nag baaxut ci am réew parce que am réew moom ñëpp dañ caa a bokk yam. Mhm. bu nit waxee toj-toj xam nga Aliou Dumburu Saw la mu waxoon. xam nga ni kooku waxtu yi waru ko woon a fekk moom lañ waroon a njëkk a fulli maraanu kiiraayam. te ñeneen bu ñu waxee. waaw waaw Alaaji yow fulli moom doo ko bàyyi. ah non non non ko war a fulli kooku waruñu koo xaar sax moom la ñu war a njëkk kii parce que dafa wax wax yoo xamante ni bii. wax yu doy waar la quoi. ay ba ko keneen même ministre de la justice bi dem fële tamit di yëkkati ay kàddu xam nga ay wax ku daan traité te jamono ji ñu toll boo xoolee. gis nga bu askan génnee. booy wut justification rek di commencé gis nga ñi ngi ñoom ñi ngi commencé di monter yeneen nit di wane ni ku nekk di wane ni président maa la gën a jege maa la gën a lool. fi mu toll nii loolu la ñuy def quoi ku ci ne ngi woote am mbooloo di jéem a positionné wu. Mhm. ah, ah te barki dem boo njaay ñëpp ñu seetaan président président na xam ne ñooñu ko doon nañ ko soon seetaane loolooy dëgg de fi mu yi dëkk bee sedd rek moo tax ñuy wane wu waat mhm. mais président na xam ni mhm. na mu ah. wéetee woon bu mbir yi gëll góosee noonu lay wéetee wala ko gën a wéet dëgg la waaw Abdoulaye Wade bi mu nekkee fii ñu bari dematuñu fa waaw bu toog fu wéet foo ko mu xam ne liñ ko dénk donc moo tax euh, yenn ah pourtant alaaji lii nga wax di dégg naa kilifa gu mag di borom xam-xam Mhm. lii nga wax la wax nee na sa waay bis bu yëfi tàngee gaañi dañ koy war non dañuy dem gars yi seen bopp dañuy protéger liñ jot am mhm. la ñuy fexe du la ñuy ñàkk mhm. loolu moom kilifa bu mag dégg naa wax nee na waa ji bis bis bu yëfi tàngee ci moom ah, gaañi daañ ko war non defe naa xam na ko parce que gis na lii romb bi passé donc je pense que ni moom li ko war rek mooy fexe li ko desee muy ñetti at yi ko desee mu jéem a teg réew mi ci raay ba kii ñëw après bañ a sonn mais mu bañ a basé wu ci ñii di ko bëmax parce que ñii moom gis na bi yëfi tàngee niñ dawee mais mais alaaji moom nag dafa mel ni dafay nelaw ba léegi moom dafa mel ni comme si supposons xam nga gars yi ku nekk yaa ngi génn di wote sa gox pour hmm. wane ni man am naa ay nit ak yooyu noonu moom dafa mel à chaque fois si loolu lay fiyewu pour di mm-hmm. mën a fal nit ki mm-hmm. diw am na nit rek et que ñu ngi waajal e-, élection yoo xamante ni dañ ko pousse ba 2022 mm-hmm. ci loolu lay basé wu gars tamit xam nañ ni loolu moom mooy euh, peut-être euh, li nga xamante ne nii moom lañ ko war a mën a fal ñooy nelaw tax parce que fi mu toll nii xam nga mi ngi def ay acte maanaam li mi ngi libéré ay nit mi ngi def ay acte mi ngi commencé di loolu ñu ngi jéem a fexe pour jéem a def ay financement pour kii yeeg yooyu est-ce que du gars yi ñooy nelaw est-ce que nekkul ni fi mu toll nii nee ñii ñii dañuy wane wu fi mu toll dañuy jaayu. ñu ngi koy wan ne ko maa la gën a loolu. gars yi ne la wuñ ne ndax ñoom ñu ngi génnee fu nekk di wane seen bopp. waaw yooyu ñoom ñooy def loolu ma ne même moom laa la wax en personne. jamono jiñ toll nii. doxalinam ak doxalinu gars yi xam nga moom depuis que mu génn. Mhm. Euh, ba ne nanooy. waaw ah bi mu génnee bay commencé noël wax waxam jooju nga xam ni wute na ak waxu 31 décembre ga mu doon wax ak waxam ja mu doon wax naan ku bëggul ñok xama dona dodd pauvre kan sooy sooy sooy rek dootu buri moom su benn baat boobu am na loo xam ne du ma ko nangu <laughs> du ma gis lu xonq du ma gis lu xonq ci napp nit ñi. ndeysaan <laughs> pourtant boo xam ne benn brassard la bu la te teeru ah, ah, boobu doon na ko gis waaye léegi defe naa dina ko léegi moom fi mu toll nii ah, en tout cas gars yi ñoom ñu ngi léegi nag bu demaatee nag ba gars yi peegaat ko bu mu duggaat ci même registre fi mu nekkoon noonu. Mm. bu boobaa tamit. maar de taal yàlla bu mu amati waaye bu leneen amaatee gars yi dañuy daw bàyyi la de. en tout cas loolu mooy li leer. li leer gars yi moom dañuy daw bàyyi la. ayca mi ngi noonu jaajëfal gu baax moom alaaji Sanjoogu Mbeng tey moo indi point ñamale gi ndax euh, tey moom euh, biddantiwu ma sax waaye euh, na tabarkàlla damaa digloon xabaar yi ndax li ma gaaroon ci suba teel gi mi ngi noonu kon alaaji indi na ma jambal jaan di ko wax rek na bàyyi xel bu baax a baax yenn saay nag am yu daan xew am na lu mu fi jotoon a bind ma jigéen ay jamono ca Touba. Mm-hmm. jamono boobu man ak sëñ xaadim sëñ xaadim Buso ilimaanu sëñ ilimaanu New York kër sëñ Touba gi boobu jotoon na koo woo ba mu ko wooyee ma jëmbal jaañ ko est-ce amul journal bu tàngalaat ceeb ci affaire Assane Diouf est-ce que jëlut euh, vidéo non dafa tàngal ceeb non journal boobu loolu wax lu tax mu bëgg ko def ci période bi waaw la ñuy wax loolu Assane Diouf bi mu ko waxee war na def un mois et quelque euh, un an lu tax ñu bëgg a jaxaseel loolu lu tax ba période bi ñu bëgg bind parce que am na journal yoo xamante ne nii ku nekk da ngay wane ni fii nga parce que lii muy wax ni ba ko Assane Diouf di wax xam nga kañ la mooy ba muy doog a jóge États-Unis la waaw waaw yi bind loolu Assane Diouf donc léegi euh, ak fi yëf yi toll nii ñu bëgg a ñëwaat indiwaat loolu quoi. Hmm. mais c'est que tamit yi. waaw man dama bëggoon rek bu ñu indi ñu indaale waaji lim naan ay waxam wérul mënul. ay waxam dafa tax ba mel ni laa ko ci jàpp. barasi mu ngi noonu kon ji ja ñu euh, bàyyi xel rek ma jambal nee na comme ay journaliste am ñooy jamb kon na ciy bàyyi xel di wax ak njabootam comme nee na moom jambut njaboot gee jamb ma jigéen. ma jigéen tey jii lañu ñu woon démb daañu ko def. déedéet mooy daal aji saar moomu ñu ni dafa am doom waaw aji daañu ci dikk incha allah ndax am na doom ak amul doom mbokkee baj baji nañ euh, beneen bi ci des mooy fanee gars yi ñu ma doon laaj li ma waxoon ci Gris Bordeaux d' accord woo nañ Gris Bordeaux Gris Bordeaux waxtaan nañu ak moom ba laaj ko sax agression boobu ñu waxoon dañ ko agressé loolu lépp tontu na ci mhm. waaye comme nee fan yi dafa am benn ndaje bu ñu jàpp ngir yëy yàbbi ca loola nee na dafay bàyyi ba booba dina leeral lépp waaye li mu tegoon suñu loxo daal mooy le ministre mhm. loola dul la am loolu daal wax na ko léegi nag mu des ci ñoom bu ñu defee seen daje moom nee nañ ci leeral lépp incha allah ma ngoog kon ñu dem nag bala ñoo dem ci ndaw si bu dee dana ci xaj parce que tey bëgg naa ñu ñam ñaari élément mm-hmm. xam nga Talla Sylla bu Thiès waaw Thiès la dëkk ah mère mooy mère bu Thiès borom marto yi ma ma jigéen nga jàpp nga ni Talla la ay marto lañ ko wulli woon <laughs> loolu de la wax ah loolu lañ wax de moom moom wax dëgg yàlla man ma ko. ma ko ah. dafa am nag ñoo xam ne dafa am lu mu leen ameel ci Covid bi. Hmm. ay tailleur la de yuuxu nañ. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel émission bu mag bii di jommet am na benn jommet boo xamante ni ñu leen koy dégtal. ànd si ak yéen ku ki ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar Baye Assane. ana ku baax ko kan la. Euh, man maa ngi tudd Faraba Sissoko dëkk Thiès. di jeune tailleur. lan moo doonoon sa yitte. waaw sama yitte moo doon euh, comme concept rek jommi rek. mi moo tax a ñëw. am benn problème. man daal jeune entrepreneur la nekk Thiès. di yëngatu ci wàllum couture. boobu ba léegi taamuwuma euh, yoonu gaal gi pour tekki. dama gëm toog sama dëkk liggéey fi pour tekkee fi. yàlla def bi mbas mi ñëwee. sama xalaat bu rafet ma defar ay masque dem jébbal ko sunu mairie bi pour rien que rek jàpp ci xeexu mbas mi parce que dama gëm ni xeex bi solidarité koy def ñu dawal ci quelque temps am yeneen ay ko def yeneen regroupement def ko ba loolu weesoo école di waaju ubbi taal si la wooñu ne ñu nañ ko defaral ay masque pour élèves yi léegi ci loolu noonu ak ay conditions yu difficile amuñu benn financement ñun ñoo préfinancé suñu bopp nangu ko metti na mais dañ ko nangu ndaxte concept bee ko laaj mbas ñu nekkoon faaw ñu jàppale suñuy suñuy njiit daal ñu def ko livrer ko à temps ba pare ñu délai trois mois trois mois yooyu mooy bientôt un an ba léegi ñu ngi ciy topp di daw. mbas mi mhm. moo taxoon ngeen def ko noonu maam ngeen nangoo liggéey te du leen jox dara. ngeen jël seen xaalis bopp def ko ngir mbas mi. mbas ba léegi. mbas mi mi ngi fi ba léegi mbas maa ngi fi mais nag euh, dafa changé par rapport ak ci début ba ni mu meloon ci début ba ni mu meloon melatu ko quoi part de responsabilité yi partagé wu nag dafay partagé wu quoi parce que Talla Sylla am nañu ko njiit muy gouvernement du Sénégal xam nañ li xew parce que coow li yàgg nañ ko yuuxu nañ ko fu nekk def nañ lu nekk mais ñoom yëg nañ ko defuñu benn geste beneen bi ma gën a metti mooy ministre de euh, l'artisanat bi ñu nommé bu bees ñu ngi dëkk Thiès xam na li xew mais cee dégg mu wax ci kenn ku ñu yombale seen bopp maam mbir mi am leen ngeen defar seen i masque dem jébbal leen ko est ce que loolu taxul ñu kii leen mm-hmm. maam bi ngeen demee ba koy def est ce que ko woon def ginnaaw soxlawu leen woon dërëm ngeen yóbbu woon ko si marché yi mm-hmm. wala ngeen yóbbu ko si jàkk yi wala jumaa yi waa mairie bi dañuy jàpp ne ñii mën nañ ko ba tax na kon lii nanguwuñ leen a fay. déedéet demeewul noonu maanaam may bi loolu moo jiitu dañ leen a defal te yàlla tax ñoom ñu ñëw proposer ñu marché bi ne ñu defaral leen ñu deux cent cinquante mille masques trois mois après ñu fay leen ko ndax masques yooyu la ñu war a séddale élèves yi waroon jàngi début octobre. yéen toog ngeen ak Talla wala. toog nañoo moom toogateeg moom. <laughs> Hmm. léegi ndax wax ngeen ko wax ngeen ko ni ko léegi daal dañoo bëgg nga fay ñu sunu xaalis muy dégg. loolu kay daanaka euh, xaw ma nu ma ko mën a. kiiyee noppam yi miis na ko. noppam yi miis na ko loolu yàgg na koy dégg ñun kay wax nañu def nañ lu ne. marché lañ def ñu bari ñu bari lañ man dem maa ci sës moo tax xam naa ñële <laughs> ñenn ñi dañoo maar wala ñenn ñi mais am na regroupement yu ci bokk am na ñeneen individu yoo xam ne ñi ngi ci ñoo xam ne dañoo am entreprise comme man. jéem ngeen a jéem ngeen a dem yoon. yoon yoon yoon non yoon xalaataguñ ko boo demee ci yoon tamit mooy loolu daal day bëri procédure yoo xam ne nii daal doy na waar. day bëri yoo xam ne doy na waar euh, taala si la borom laay wàccal wala boog njomboor wàccal borom njomboor fu ne mu dem fa ma jigéen nag lii mooy lu doy waar loo xam ne bari na lu muy am ci réew mi bari na lu ñu koy jot muy ay ojo yoo xam daal ay euh, euh, ponkal yu ne ci dëkk bi te am lu ñu fayee seen ay nit war a jàpp ci développement réew mi tey laaj réew mi di jox leen ma ma réew mi ma defar daal ñooy amee lenn ci ay sénégalais lànk ne leen fay bu ñu sukkandikoo ci kàddu waa ji nag taala la am na lu mu war a mën a fayee ñi nga xam ne ñoom ñooy lenn ci téere yi nekk ca Thiès. waaw normalement. Hmm. parce que moom. yàgg naa gis muy recevoir ay nit surtout xale yi nga xamante nii ay joueurs nawetaan lañ. Mhm. mu leen dalal si birom ba saa yu ñu génnaan sax da ngay gis ñu jël photo yu publier ko parce que day wax dañuy wax ni birom sax basang la falal su leen su leen recevoir si <laughs> basang gi la ñuy toog ñoom ñëpp mu mu mu ñu wax ko seen soxla mu fajal leen ko tey jii nii su ñu demee ba ay problème mu masque nar a indi problème foofu noonu ndax si euh, yoo xamante ne nii jàpp naa ni yaa ngi def leneen lu ko ëpp selon si suñu dégg

Euh, kii ñëw jël dooleem def ko ci problème masque yi ñaw ko ba mu normal jox la parce que daf ko defoon bu njëkk bi te yàlla rek a tax parce que gisoon nañ début corona bi gars yi doon ñëw ay masque di ko maye ñu ko mayee nag man maa jàpp ni avant Assane di boobu la foogoon naa ni peut-être ñoom dañu jàpp ni comme que defaroon nañ may leen rek euh, bi pa mooy bi mujj bi ñu leen di wax defar leen ñu deux cent cinquante mille masques yi moom tamit amul fay mais mm. comme que dem nañ ne nee nañu mm-hmm. laaj nañ ko ba tàyyi ne ko fayal fayal fayal fayal. kon mhm. nag nañu fay problème. vraiment masque parce que nit ki tamit mënul dem jënd tuseem. Mhm. jël temps masque ñaw ko nu mu méttee parce que lu lu ndaw moom. soo mhm. koy ñaw coono lay laaj. kon jox ko àqam parce que tamit am na yenn yoo xamante ne nii jàpp naa ni jaaduwul sooy def leneen loo xamante ne ni. waxuma ne c'est inutile. c'est bien mais tamit joxal kii tamit ak àqam nga yemale ñëpp. d'accord. ñu ngi gërëm Assane Mesere macha allah xam naa ne dinaa ko yóbbu ci yoon muy def kii ah. bi tamit xam naa dana koy defee ji ca fa nga xam ne parce que démb maa ngi leen di déglu son yi bu euh, ba mu yoree kii am ba mu naan baax na ci biir bu rëy euh, di jël ci man exemple donc euh, Assane Mesere moom bu yoboo mu xam ni te xam nga li ci doy waar damaa play rek parce que sama dooma ko doon dégloo do te eh. ku naan sàñño bi baax biir bu rëy <laughs> waaw uh-huh. xam nga Talla Sylla bureau boobu. Mm. Eh, yëpp nit ñi la. ah waaw parce que bureau baax na fay ñëw. Mm. da leen a war a mettre à l'aise mais am na ñoo xam ne mënuñu sax toog toogaayu basang bu ñu fa nekkee sax wax seen soxla sax dina leen të parce que dañ du confortable pour ñu mën a toog normal. mais nee na dafay changer parce que bureau du question dafay changer. c'est du pour moom. mais pour ña nga xam ni son yi bu coupé nga ma de. Euh, non dara de. non coupé woon na. kon rajo euh, bureau mm. du. bu fekkante da nga ñëw pour accueillir nit pour nga recevoir ay nit la nit ñi ngay recevoir buñ ñëwee dañu war a nekk ci cadre boo xam ni cadre bu bien la waaw toog fu baax foo xam ne dinañ mën a permettre liñ la bëgg a wax ñu wax la ko mais am na ñoo xam ni tey buñ ñëwee ci biro ba toogaayu basang boobu lañ mënut d'abord du duñ nekk à l'aise ba liñ lay wax sax mënuñu ko wax li nga xamante ni euh, noonu lañ ko war a waxee wala comprendre li ma la bëgg a wax ñëw di lal ay basang ñu naan dafa modeste ak dafa dëddu àddina mbir mi du ay question dëddu àddina dañ la teg ci ab post la da ngay fay dalal ay nit mënut ku ñëw nga lal ko basang am na ñoo xam ne mënuñu toog ci basang nañu alaaji mais alaaji basang kay baax na xam nga sooy bu wala mu def ko mat laa sax toogaayu basang boobu ci boppam dafa am ñu ko mënut muy waxante dëgg. mais bureau alaaji du waxtaanukaay alaaji du waxtaanu non non non mais biir ah kañ bureau ba dañ ko fa def. Hmm. uniquement pour ngay recevoir ay bureau day am ñoo xam ne bu ñu ñëwee. Hmm. dafa am lu ñuy wax ak yow. luy doxal mairie beeg luy doxal kii bi la ñenn ñëw ay projets yooyu nga lal leen basang alaaji style d'accord léegi du question style ñu naan dafa modeste ak dafa def nii ak dafa def naa. <laughs> xam nga ñun man c'est yàlla daf ñu dimbali diggante bi mhm. am na ñu bari ñoo xamante ni bii billaay rëj réew mi naroon naa rëcc ba tegu seen loxo. Mhm. te musiba lañ doon indi li nga xam ne moom lañ wax bi ñaareel bi. Mhm. Euh, ñee Assane Messere dafa laaj question bu am solo. parce que ñii. Euh, ñoom ñoo njëkk a yabaate. ah parce que dañuy politique di kay pour gagner marché moo tax ñu ne waaw da nga may déglu rek mais politicien nga may déglu ay acca na li tax ñuy politique mooy mbas mi dafa ñëw hmm. nga defar ay masque hmm. sa xalaat bu njëkk mooy nga dem may ko mairie ba waaw dimbale leen mairie bi nga ko may mu wóor la nit ñi ay politiciens lañ mën nga leen ko may sax ñu may ko seeni militant ah alaaji daf ne dañ ko jox waa mairie bi pour kenn da leen ko dàq séddale kenn ku ne yow mbas mi bi mu nekk fii ay nit jógee wuñu fële hmm. ñëw may ñu ay masque soin bi di ko dis di di distribuer ay nit ñëw nañ di ko def waaw yaa ngi ñoom bañ jëlee masque ya romb nañ ay nit ñu bari ñoo xamante ni bëgg nañ masque mais alaaji fii fii borom bonne volonté yi doon joxe seen dimbal état bi lañ ko jox danga may déglu rek ma wax la xam nga loolu man ci boppam hmm. loolu moom laa njëkkut a ànd man nga jox état bi mu joxe waay waay dëgg lu tax ngay jox état bi ñu joxe état boo leen joxe ñu ñu doon joxe sax joxe wuñ lu mat état bi ci boppam dañ leen a jox kees ñoom ñoo war a tibb ci kees bi joxe wala déedéet ku ca ne ci fi nga ne fa nga waroon a jënd la nga xam ne mu ngay jënd joxe ko fa nga ne muy doon ëpp sens man gis naa fi ñoo xamante ni bii jënd nañ ay masque yu waajooju sëriñ boobu sëriñ Abdou Bara Dolly gis nañ ko mu jënd ay masque di ko distribuer di séddale ak ak ay gel di ko yóbbu ci kii am ñoo xam dañ doon jël di ko yóbbu ci ay garage mm-hmm. di ko yóbbu ci ay kii yaa ngi dégg ñoom liñ ci bëggoon. donc am nañ ko ci parce que dañu bëggoon pour lijjanti marché masque yi. Hmm. moo tax ñu yóbbu fa masque. léegi nag le problème nag mooy nag léegi nag bañ ko defee ba taalisi la commande leen ne ñi fi indiwoon woon masque yi naa leen commandé masque. Hmm. donc nag da leen a war a fay. Hmm. waaw comme que da leen a commande. li jox leen da leen ne da fay. daf leen a war a jox seen xaalis parce que lu leen lew doom la. Mm-hmm. lañ njëkkoon a ñëw dañ koo ñëw maye si ànduma nag ca maye bañ ñëw di ko may mairie. non non alaaji loolu nag alaaji loolu nag alaaji dara tey président askan wi la. waaw ak école yi. askan wi nga romb askan wi romb école yi ñëw di ko jox maire. non président tey alaaji pour maire dem loolu. waaye loolu loolu loolu yow boobu ñaata nit mën a corona. Ah, diggante ba ngay dem ca maire di ko ko jox ñuy wut ay procédure zone sangam nañ ko yow boo defalee masque rek doo moom soo leen woowee rek ñoom ñëppay dajaloo ñëw maire mos ngaa gis buy mayee dara te indiwut mbooloo filmé caméra ah, mais mais alaaji loolu mos nga koo gis fii ci réew ah, léegi alaaji alaaji maire yi la ñuy séddale waaw mais lu ci bari fa lañ koy séddale lu jëm ci wàllu gox beeg koñ ba léegi nag de quartier bi chef de quartier la waaw ah, chef de quartier nag réew mi ko nag. non non mais am na loo xam ne boo ko joxee maire. Hmm. askan ba sax mën nañ caa bañ a jot. pourtant alaaji askan bi mën nañ koo jot askan bi daf koy jox chef de quartier bi. su loolu waaw mais procédure bu gudd lu tax ñu bëgg lu gudd loolu. yor naa samay masque nee naa la déggoo ma wax la. Hmm. marketing lañ doon def maanaam jox maire bi pour maire bi ubbil leen bunt pour ñu mën a defar ay masque loolu nag am nañ ko ci biñ ko defee léegi mais maire bee leen fayut léegi maire nag da leen a war a fay alaaj barki démb buñ kii yëngi nii buñ joon non du bon joon kii la waaw moom la sax anu Antoine keroog ba mu yoree cinquante millions def ko ci saak bi ba mu demee du daan ni ko jàpp sëñ Muntaxa ni ko joxal gaa ñi lakkale noonu lay demee alaaji joxal gaa ñi lakkale mooy marché ba Antoine Antoine ba mu jëlee nga ne ba mu jëlee cinquante millions def ko ca saag ba. waaw ñëpp toog mu génne ko ni am sëñ bi joxal ñuy lakk de. waaw bokkul de il faut comparer dama la bëgg a wax non non comparaison la bëgg a wax alaaji mooy. non li la bëgg a wax mooy booy joxe des fois. jox ci moo fay jiite alaaji tey taala si la askan moom kay bu fekkee ni moom xëy na moo jubadi jubadeem d'accord moom la moom la kii mais bu fekkee ni man maay joxe war na maa jox taala ni ko am joxal as askan ah. Ah, waaw loolu ngeen gis quoi non war na mën a nekk laa wax war na mën a nekk. loolu ngeen gis quoi. war na a nekk de. bu joxee mairie bi mairie bi ñoom nag ñooy xool gox yi nga xamante ne nii. war nañ ko hmm, ba wala. léegi li ci des nag mooy na fay booy seen xaalis ku nekk ñu séddale sa quartier ci bëggoon. waaw mën ngeen a nu leen neex. waaw léegi nag li ci des mooy na fay na fay na fay booy seen xaalis. Euh, duma xaar ki nga xamante ni kii moom moo war a sédd. Hmm. jëndi masque ngir sédd ma defu ko man ma defar ay masque yóbbul ko ngir mu séddale déedéet du ko def bu ma yoree lu may maye léegi may jël masque ya daal lee dem mayee ko ñi nga xamante ne bi jàpp naa ne ñii kat hmm. yelloo nañ ko parce que du romb ñu ko soxla lool ma dem jox ko maire bi mu wóor ma ne maire bi buy séddale ñii duñ ci am te ñii man ak ñoo ma dëkk ma romb léegi alaaji wal fajir bu ñu fi doon maye si ay zel duñ dem jox ko Cheikh Niass pourtant waa wal fajir lañ ko may Euh, bul comparer lu bokkul. ah dé non alaaji dama lay wax rek nii la am na loo xam ne boo ko joxee dafay gën a yaatal bokkul taala si ndaw yi ndaw yi réewam demee ba ba mën a defar dara oh. jox ko ko mais dañoo bëgg mu yaatal ko ci askanam non non non non xam nga yow comparaison yi ngay def hmm. doxul taala si la ci boppam dafa am ay farandoog ñu ko faral ak ñu ko kii yaa ngi dégg hmm. la nga xamante ni ña ko fa tabb am na ñoo xamante ni bi dañoo am ay opposant ki loolu yaa ngi dégg hmm. te it ki nga xam ne moom ngay yóbbul masque yi ndax waa Thiès ngi nii Talla Sylla euh, mi ngi liggéey Thiès. Thiès mi ngi ah, en tout cas daal man si corona bi si digg corona bi ñu tëjee. du ma demaan Thiès dama daan gis ñuy togg si fenn yi pour di dem di yóbbu. waaw ni moom Talla la moom moo ko doon def pour daara yi. Mhm. loolu moom man gis naa. pour daara leneen lu mu fa def gisuma ko. doon na yàlla. waaw toggulu waaw togg moom lu baax la togg jox daara yi moom baax la daal léegi daal léegi kii bi jeex na jeex na aji day xaar ba suba togg ci daara yi ku muy recevoir daal si basangam waa léegi alaaji léegi waa jeex na génn leen léegi basang waa léegi melo man de duma lalal basang bu subaa sax basang laa leen di lalal foofu wàcc micro yi yéen sax alaaji nga naan ay confort hmm. confort basang laa leen di lalal foofu bu subaa ngeen jommet ci voilà melo maa ngi lay nuyu waaye taala si la laluk basangam di ci recevoir alaaji ne lu tax man kay problème mooy na fay xaalisu boy yi mu jël mais kanta basang ak séjaada ak matla lépp na recevoir rek voilà taala sax moom ci boppam moo fi wayoon lii est sax du ma ko taala fayal booyi seen xaalis nag sinon dinaa la booleeg Serigne Modou Kara Mbacké ba suba ak xam naa aji saar bi daan ci dikk